baaxoo nañu di jàpp ci liggéeyu daayiratu Muqaddamatul Xidma di leen xamal ne weeru koor mi ngi ñëw weeru koor nag di weeru xéewal woo xam ne weeru traite la boo xam ne jullit bu nekk war naa fexe ba màng ca koom mu baree baree bari moo xam ne dana ko mën a jëriñoo ëllëg yowmal xiyaamatil akbar loolu tax na daayiratu Muqaddamatul Xidma di soññi mbooleem ñi nga xam ne daanañu jëflante ak moom ci biir koor gi ci kaw iftaar yi nga xam ne moom la ñuy def fii ci jumaa ji te di ko defal njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñooy doge ci jumaa ji ñëpp tax na nag ñi ngi soññi képp ku bokk ci daayiratu muqaddamatul xidma te nekk ci biir réew mi moo xam nga yor fi selil wala nga yor fi ab daayira boo xam ne dafa aju ci daayiratu muqaddamatul xidma bu nekk biir Touba ak bu nekk ci biir réew mi ak fu mu mën a nekk ci biir réew mi waaye it di ni ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew tàmbalee ko ci Afrique Europe Amérique ak mboolem continent yi nga xam ne mooy cinq continent yi yëpp foofu waay mën a nekk te nga xam ne daan nga jëf ci daayiratu Muqaddamatul ma daayira bi ñu ngi lay tàllal loxo koo xam ne it yàlla dogal ne mosoo ko woon a yëg wala baaxoo woon ci woon di ci participer itam daayira bi ñu ngi lay tàllal loxo tey xam la ne fa liggéey bi daf ko fas yéenee ànd ak ñëpp bépp taalibe bu yaakaar Serigne Touba rawatina ci waaye bépp julit bu bëgg lu baax bu ci bu joxee alalam. des na ko defal ci liggéey bu sell bii liggéey bi nag yoon yam daan jaar rek lay jaar bu dee yi nekk ci biir réew mi te daan jaar ci ab daayira daayira booba te lay jaar ba léegi su fekkente dafa nekkoon bitim réew te daan jaar ci ab daayira wala mu daan jaar ci fondation wala mu daan jaar ci ab association ba léegi itam foofa lay jaar dara soppiku ci Serigne Assane Diop mi nga xam ne moo coordonné bitim réew mi ngi nii toog waaye moom it ñu ngi koy ñaan mu soññi ñi nekk bitim réew ñëpp ñi nga xam ne it dañ daan ñëwal seen bopp directement ba ci barab bi ñu indi seeni i barkeelu it ñooñu nañ xam ne buñ ñëwee danañ fekk nañ ko daan jox liggéey bi daal kon na ñëpp yëg ne tàmbali na ñu ngi ciy séntu ñëpp te yaakaar ne kenn ku nekk da nga ci jëf sa kéemtulaayil kàttan luñ ci mosoon a def nag at yi weesu nañ xam ne bañ ko tàmbalee ba léegi at mu jot day yokk ran nag képp koo xam ne yàlla dogal na nga bëgg cee participer su fekkente ne yaa ko daan jaaree ci compte banque compte bancaire ba nga daan jaar rek. nga ciy jaar su fekkente ne da nga ko bëgg a jaarale itam ci transfert yi am na benn numéro boo xam ne béef la Orange Money la muy 77 686 13 13 77 686 13 13 kon ñu ngi sant ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.